الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إني يسأل سنتات بروم سبحانه وتعالى إنه ورسقل dajawaat ci ab néegam fas yéene jël benn bind bu aju ci diineem bind boobu ñu koy topp ci dimanche bu nekk incha allah mu jëm ci wàllu fiq ñu ciy dimbali ko téere bii di minhajul muslim wa abubakar jabir aljazairi rahimahullah ñu doon nekk ci li ñuy tuddee jumlatul ahkam ba yegg si tey ci almaadatu saamina fi lwaqf fi lwaqf bu dee ñu yoru mool yu bees yee ñu ngi ci page 346 ñu ngi noonu yenn version 3 bi ñu ngi ci 327 kon tey jii mooy fukki fan ak juróom benn te la nga xam ni mooy jumaadal ula sunu maam yi dañ ko tuddee rakkaati gàmmu muy tombé le onze ci décembre ci deux mille vingt deux su dee bokk nañu gis bind bi kon day wax ni fi lu waqf taarifuhu lan moo lay xamal lan mooy waqf alwaqfu huwa taxbiisul asli lii nga xam ne mooy waqf mooy nit ki daa di wattu jàpp denc la nga xam ne mooy cosaanu la muy def waqf fala yuurasu wala yubaaxu wala yuuhab loole mu def waqf taxawal ko kenn du ko donn kenn du ko jaay kenn du ko maye wa tasbiilu samarati liman waqafat alayhim ñu daldi nag continuer joxe la cay meññi ñeel ña nga xam ne nii dañ koo taxawal ñeel leen kon mbokk loolu la ñuy tuddee waqf waqf mooy mbir boo xam ne aji moom ji moo ko moom ba léegi comme nu ngi koy détaillé ci kanam masalan kër gi yaa ko moom dana léegi yow kër gi def nga ko waqf waqf boobi mooy lay jóge ci kër gi ci location yow yaay xool ñala soob ñu jox leen ko waaye maadaama xas nga tudd ba ne waqf la kër googi yaa ko moom moomeelu féete woo ko waaye sa doom duñ ko doon na ci yow it amoo droit di ci dellu gannaaw di ko may kenn amoo droit di ko wëlbati ko di ko jaay maadaama dem nga ba tudde ko waqf alal lay doon joo xam ni alal yi yàlla la loolu nag boo xoolee suñu réew yi daanaka xamuñu ko bu baax fële alhamd at yi ñu ngi koy commencé xam tuuti ba état Sénégal ci tolloog ay ñaar ñetti at jëm créé nañ li ñu tudd au commissariat du waqf ba créé nañ benn loo xam ne xaw na jege ab ministère boo xam ni day toppatoo ñi jël seen alal ba koo def waqf nga xam ne léegi dañ naan alal ji léegi la ca juddoo day jëm ci luy jëriñ bu ko defee ay yombal daan ngeen ko ci defal ki impôt yaag ay yu demee noonu loolu boo demoon nag dëkk mel na ay Arabie saoudite wala dëkk naar yu bëri dañuy gis ne ñoom la ñuy gérer ci waqf man ngaa dajale fukki pays africain la ñuy gérer ci waqf Arabie saoudite moo ko ëpp ci seen budget lu tax mooy nit ñi xam gën ko xam su ko defee yow mi yor sa téere mu ne xukmuhu lan mooy àtte loolu الوقف مندوب إليه مرغب فيه jël lenn ci sa alal day def ko waqf te mooy téye ko yaa ko moom ba léegi la cay meññe na nga am koo ko jubal loolee day nekk na loo xam ne lu ñuy ah sopp la lu ñuy xemmem loo yit nit ki def ko bu ko yàlla dinke alal bi qawlihi taala إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا suñu borom yàlla lim na nit ki bu dee ña ko war a donn mu ne nag gannaaw ñii di donn kenn amul droit jël sa alal naan su ma dee ñii nañ jël lii nañ nañ nañ jël lii bokk ci ndono gi xanaa lu dul ngeen def njekk jëm ca ñoom bokk na ca njekk googee mooy jël lenn ci sa alal loo xam ni da nga ko cay génne du bokk ci liñ lay donn ñu tudde ko waqf wa bi qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ida mata al insan inqata'a amaluhu mu ne nit ki day bu deeyee jëfam dagg na illa min thalathati ashya xanaa lu dul ñetti mbir yi day ay jëfam moom ma nga ca continuer mu mel ni mi nga doon dund di liggéey bi ci jëkk mooy sadaqatin jaariya mooy bépp sarax boo xam ni ma ngay continue di am lu mu jur te loolu waqf ci la bokk aw ilmin yuntafau bihi wala boo xam-xam bu ñuy jëriñoo ba ca gën a mag mooy xam-xamu sharia waaye ca jàngale woon menuiserie maçon électricité ña ngi ko jàngal di ca tedd loolu it da la jurul tuyaaba aw waladin salihin yad'u la wala doom ju baax du koy ñaanal looli mbokk da ngay gis mu ne nag wa min sadaqati al jaariya waqfu mooy bokk na ci sadax yi nga xam ne day wéy gannaaw bi nit ki dee mooy waqful buyut mooy nga taxawal ay kër wal aradi ak i tool wal masajid ak ay jàkka wa xayraha ak lu mel noonu kon rasul sallallahu alayhi wasallam dana nit ki bu dee si fini jëfam moom dagg na am na nag ku dee ci jëfam du dagg te mooy ci jëloon alalam def ko ci loo xam ne day tuyaaba ja day meññi gannaawam joxe woon nañ ci misaal ci kër nit ki mën ngaa jël ay kër ne kër gi da nga koo jagleel ay maski ay masakin ñu dëkke ko wala nga am say mbokk yoo ko jox ñu dëkke ko la nga leen may moo ñu dëkke ko bu la neexee it luyee ko di jël location bi di jox ñeneen naka noonu ay tool nga am tool bu mag ne tool bi de waqfal lépp lu te meññee at mu nekk nañ ma ko séddalee la ñii ci sa dund ak sa dee yëpp mu bokk ci waqf yi gën a siirit mooy li nga xam ne mooy jàkka ya imma nga jël sa alal tabax ci sa jàkkay bopp wala nga fekk jàkka du ñuy tabax nga dugal ci sa alal loolu da ngay gis ne tànk kër gaa nga taxaw di meññi tuyaaba joojee day dellu si ci yow tànk tool ba ma ngay nekk di am njëriñ tuyaaba joojee day dellu si yow jàkka joojee nga defoon sa alal it tànk nit ñaa nga fay nekk di julli loolu dafay doon njëriñ buy dellu si ci yow loolu ñu war ci bàyyi xel bu baax ñu ngi ci sax profito jàkk ji ñu nekk douche yu mag yële dal bi dafa nekk di menacé loolu moo taxoon ba dañu xalaat jéem koo daaneel defaraat tey sax ñi ngi doon defar douche bi ci wetu morgue bi di ci def ay douche de secours ngir lili bu buñ ko dindee nit ñi mën a jëfandikoo fii tuuti balaa fee di pare loolu nag xaalis bu ko liggéey amu fi dañ ko doon yëgal mbokk jàkke ji ci ñu bàyyi ci xel mooy buñ ci amee loo xam ne dañ ko mën a defar dañoo fas yéene dindi dal bi defar ko beneen dal ndax boo jaaree ci gannaaw nga xool la ko wër yépp dafay nekk di menacé loolu ab misaal la ci ci képp koo xam ne da ngaa bëgg a def lu baax mu am yeneen yu bëree bëri rawatina réew yu mel ne suñu Sénégal gi ak a bari ay dëkk yoo xam ni amuñu ndox dëkk yu amul ndox lu bëree bëree bëri fi la alhamdu am ni nit ñi am xalaat boobu daanaka lu jege xanaa ay fukki teen am na ay mbokk yoo xam ne nii da ngay gis ne jaarale nañ ko ci ñun mu dem ci àll boobi dëkk yoo xam ne ay kilomètres yu bëri la ñuy dox ngir ngir am ndox bu doon te ne ay yeneen association yi it naka noonu ak bëri ay dëkk yoo xam ne tey jii amuñu ab dispensaire seen doom bu ñu bëggee jabar yi bëgg am doom ci ay saret lañ leen di teg yóbbu ay kilomètres ñooñi ñu xooloon defaral leen ab dis ab dispensaire mbokk yooyu ci tuyaaba yi gën a rëy ci tuyaaba yi la bokk la ñuy wax ci loolu moom la ñuy wax ci ci daara yeeg yu gën xamul wallaay jàkka ji rek biñ koy daj ji li ñuy def mbaar bi fii xale yi ko doon liggéey seen jàkka yi dëkk ay sakket la yoo xam ne bëy yi fa la ñuy fanaan loolee mbokk ay mbir la yoo xam ne ni tey nit ñaa ngi jël benn oto rek dugal ci cinquante millions wala lu ëpp loolu te mën na am foofu boo doon joxoon dix millions rek waa dëkk yu ndaw yi ñoom mën nañ cee tabaxal seen jàkk même pas un million mën nañ ca màppeen yooyu ay mbir la yoo xam ne mbokk nit ñi dañ cee war a bàyyi xel bu baax a baax yooyu mu yor sa téere nga jàng mu ne shurutuhu yushtaratu fi sixati lwaqf ma yali bokk na ci lu ñuy charto ci taxawal waqf mooy yi di ñëw charte boo ko déggee mooy loo xam ne nii su ñàkkee mbir ma day yàqu ba ca jëkk an yakuna alwaqifu ahlan li tabarru'i bi an yakuna rashidan malika mooy kay def waqfa waqf ba day nekk koo xam ni islam dana nangu ak joxeem ca mooy mu nekk koo xam ni ku rachid la mooy ku majeur la te ku am maturité la ku xam li muy def la la muy joxe it fekk moo ko moom la muy joxe it fekk moo ko moom waaye ku joroon waqf def ko ca alal joo xam ne moo moo ko amul benn njëriñ bu mu lay bu mu lay jural ñaareel bi an yakuna al mawquf alayhi in kaana muayyanan mu nekkit kañuy defal waqf bi su dee ni nit la koo xam ne dañ koo tudd mimman yasixu tamallukuhu kookee dafay doon koo xam ni ak moomeelam lislaam dana ko nangu fala yuqafu ala janinin fi lbatn kenn du jël alal ne defal naa ko waqf li nekk ci biiru soxna si te kenn xamul nu muy dikkee wala ala abdin mamluk jaam boo xam ne dañ koo moom it kenn du ko defal waqf lu tax mooy jaam moomul kon lan boo ko bëggee dem di danga koy jëkk a goreel mais bu dee goreeloo ko doo ko defal waqf wa in kaana al waqfu ala gayri muayyan su dee nag la ngay def waqf moom tënkoo ko ci ak nit ishturita an takuna al jihatu al mawqufu al alayha dañuy chartool jubluwaay ba nga bëgg a def ñu def loola la nga xam ne mooy taxawal waqf boobu mimma tasihu al qurbatu ma'ahu muy loo xam ni islam dana nangu ñu jëfandikoo ko mu nekk qurba ay lu ñuy jaamu yàlla fala yasihu alwaqf ala lahwin aw kanisa aw muharram islam du nangu nga ne masalan lii nga xam ne mooy waqf bi nañ ko yóbbu ci loo xam ne ay puukare kese masalan ay bidaa xew-xewu bidaa boo xam ne da nga ni du jóge sama tool yi wala sama kër yi nañ ko yóbbu foofu islam bëggut loolu waxumaa nag ay église wala lenn loo xam ne nii dafa xaraam kenn du ca def waqf ñetteel bi an yakuna tawqifu bi nassin sarix la nga xam ne moom la ñu def waqf it dafa war a doon ci waxin woo xam ne bu leer la ka waqfin aw xabsin aw tasadduq nga xam ne ña ngay waxal da nga naan lii day def naa ko waqf sama kër gi sama tool bi waqf la wala lii day def naa ko xabs ca mooy waqf rek mooy cosaan bi moom téye naa ko waaye meññeent bi nañ ko jëme fa nga xam ne moom nga tànn ñu jëme ko fa aw tasadduq wala nga wax wax ju leer ni lépp lu jógee ci sama kër dig sangam lépp lu jógee ci sama tool sangam wala lépp lu jógee ci samay oto sangam loole nañ ko joxe ci place sangam place sangam bi ngay dund ak bi ngay dee loolu kon la ñuy tuddee wax ju leer ñeenteel bi an yakuna al mawqufu mimma yabqa mu nekk la ñuy def waqf di loo xam ne dafay des baada axdi xallatihi fekk la ca meññi buñ ko jëlee it moom day continuer sax ko duwarin wal aradi wa ma ilayha te mooy li ngay def waqf fokk mu doon loo xam ni la cay meññi buñ ko jëlee mu continuer sax mi ngi mel ni kër ko joxe kër ay nit dëkkee ko mi ngi noonu kër gaa nga fa dañ koy luye di fay lo di di joxe location ba kër gaa nga fa tool ba it at mu nekk la ca meññi ñu joxe ko teewul tool baa nga fa mu ne nag amma ma yafna bi mujarradi intifaa bihi amma loo xam ne moom da nga koy joxe nit ñi jëfandikoo ko mu daal di jeex kalmat umatin lu mel ne ya ñuy lekk ak wa rawaih parfum yaag wa nahwiha fala yasihu tawqifuhu lépp loo xam ne moom buñ ko jëfandikoo mu jeex loolu kenn du ko tudde waqf loolu moom sarax la ak may moo tax mu ne wala yusamma waqfan loolu kenn du ko tudde waqf bal huwa sadaqa loolu moom sarax lañ koy tudde waaye waqf moom mooy loo xam ne day doon lu continuer di sax di am njëriñ teewul la nga xamee ni nii moom mooy cosaan ba moom mi ngi continuer sax loolu mooy charte léegi nag ñu ñëw ci li ñuy tuddee atte yi ca mën a am ahkaamuhu ahkaamul waqfi hiya lii dee attey waqf mooy lii ñu mu bëgg a wax yasiwul yasixul waqf ala al awlaad islam dana nangu nit ki def waqf ñeel ay doomam ñeel ay doomam wa ida qaala awqaftu ala awlaadi heure boo waxee ne lii day taxawal naa ko ñeel samay doom shamila lafzu alzukur wal inaas maan wax joojee moom day ëmb góor ak jigéen boole seen kama shamala awlaad zukur duna awlaadil inaas doonte ne ne awlaad mën na ëmb ay góor fekk jigéen ñi duñ ca bokk mu ne wa in qaala waqaftu ala awlaadi wa aqaabihim heure boo ne lii day taxawal naa ko ñel samay doom ak seen ña leen di wuutu gannaaw ba muy seen seen i sët shamila awla awlaad zukur wa awlaad al inaas maan day ëmb góor ñi ak jigéen ña mboola seen wa in qaala waqaftu ala bani amma nag boo ni lii taxawal naa ko ñeel samay doom yu góor kaana ala zukur duna al inaas su boobaa góor ñi ñoo koy moom jigéen ñi bokkuñu ca kama law qaala ala banaati boo ne lii day taxawal naa ko ñeel samay doom yu jigéen kaana lil inaasi faqat loolee day ñeel doom yu jigéen yi kese day wax fii rek mbokk lii di waqfu nit ki mën na koo defal ay doomam masalan am nga sa kër gu mag nga ne kër gi day bu ko kenn jaayat bu ko kenn jaay def naa ko waqf léegi li nga koy defa waqfu mooy ne nekk dëkkuwaayu say doom wala niñ ko luyee weer wu dee lu ci am ñu séddale leen ko loolu nag ñaar moo ca mën a nekk immaa nga ne samay doom day ëmb góor ña ak jigéen ña wala nga ne sama doom yu góor ya day ëmb góor ñi kese sama doom yu jigéen ñi day ëmb jigéen ñi kese loolu kon doomu aadama bi it islam may na ko mën na koo dimbilee njabootam su ko defee loolu du bokkati ci liñ koy doon moom day nekk noonu rek di sax lu ca meññi wala luñ ca mën a jëfandikoo doom yi ñoo koy nekk di ko di ko jëfandikoo bu dee da ngaa yor sa téere mu ni كل هذا إذا كان يفهم تفرق بين مدلولات هذه الألفاظ لين بن كاي واخ mooy bu ñu teqalee la nga xam ne mooy bu ñu mënee xam teqale wax yooyu ngay wax wa ila fala ibra bi alfazihi bu dul looloo kenn du nekk di xool wax ja nga wax te dafa am loo xam ne nii am na langue yu ko mën a xam am langue yu ko xamul masalan boo nee samay doom moom ñëpp xam nañ ne góor ak jigéen nga ci nam amma boo ko teqali ne góor ak jigéen dañ xam kan mooy góor ak jigéen mi ngi noonu su ko defee ñaareelu atte bi mu ne yalzamu l amalu bima yashtarituhu l waaqif min was des naa lënkale ci ñu jëfandikoo dañuy charto ka nga xam ne moo moom alalam daal di koy def wax melokaan ba mu ca wax aw taqdimin aw taxir lam ca jiital lam ca yeexe yooyu yëpp dañ ko war a sàmm falaw qaala waqaftu waqaftu kaza bu ne woon lii day man taxawal naa ko ala aalimi muhaddasin ci boroom xam-xam boo xam ne boroom xam-xamu xadis la aw faqihin wala boroom xam-xamu fiq la lam yatanaawal lafz siwa saaxibi sifa min naxwin aw arudin aw gayrihuma su boobaa ñooñi nga xam ni bokkuñu ca melokaan yooyu ñu wax ñuy jàngale grammaire rek ñuy jàngale ay prose mooy yenn way yi ak na langue arabe gën a mën répété loolu duñ ca bokk te loolu misaal rek ndax moom ab jàmm ab jàngalekat la waaye ci gàttal mooy heure boo xamee ni daa am loo xam ne moo ko moom mu ne lii kat maa ngi ko jagleel melokaan sangam képp ku bokkul ca melokaan boobee doo am àq ci ñu koy jox ca loolu dam yor sab téere mu ne kama law qaala waqaftu kaza ala awlaadi suma awlaadahum su dee ne da nga ne lii day taxawal naa ko mu ñeel samay doom ak seeni doom summa awlaaduhum ak it seeni doom ñoom muy seeni sët aw qaal wala boog nga ni tabaqatul uliya taxjabu sufla heure boo demoon ni ña nga xam ne ñooy samay doom day daañu fekk ñëpp ñu leen féete suuf kaana ala ma qaal waqf ba day nekk ca lam wax rek laysa li tabaqati dunya xaqun fi lwaqf ña nga xam ni dañoo bokk ci ña gën a suufe seeni baay duñu am àq ci waqf bi xatta tanqarida al uliya ba baa muy jeex takk ña nga xam ne ñooy féete woon kaw mu jox ci misaal falaw awqafa shay'an ala salasati ixwa su doonte ne da nga jagleel benn mbir ñetti ci ay frère fa maata ahaduhum kenn ka dee wa taraka awlaadan mu bàyyi ay doom lam yakun li awlaadihi nasibu abihim du ñeel doom yooyee seen cëru baay bal yaudu ala axawayhi bal loolu day dellu ca ñaari frère ya maadaama alwaaqifu qad ishtarata ndax ka nga xam ne dafa taxawloon mbir ma moo chartoo woon xaj ba tabaqati ulia li tabaqati sufla ni ña nga xam ne ñoo féete kaw dañuy fekk ñu féete suuf wa ala kulli xaal li muy wax fii rek mooy kii def ne sama kër gi wala sama tool bii day maa ngi ko jagleel samay doom loolu rek la wax su booba doom yooyu rek ñoo am droit àq ci jël lay meññee ca tool ba wala kër ga amma sët boo xam ne dafa ñëw même bu dee bàyyam dafa dee ci ca ñooñu ñu lu waxoon du am àq ci alal ci ndax doom ñoo ko moom te moom du doom moom sët amma nag bu ne woon lii samay doom ak samay sët laa ko jagleel su boobaa da ngay gis ne képp koo xam ne dafa nekk doom gannaaw doom yi cosaan ba dana am àq ca la nga xam ne nii moom mooy alal ja ci tënk rek mooy ki am alalam tool laam kër laam ay oto laam ay lu mën a doon moom moo am droit wax ni lii day ñii laa ko jagleel su ko neexoon ne yemele naa ko samay doom su doom ya jeexee alal ja ñu jël ko delloo ko ci luy jëriñ doomu aadama yi am maa ne guddee yi dama ko daglal sama doom ak seen njaboot loolee day wéy ba ah fii ak alal jaa ngay taxaw di mën a jëriñ bokk na ci yow mi yor sab téere mu ne ba tey it yulzamu lwaqfu bi mujarradi ilaanihi lii di waqfu moom boo ko demee ba siiwal ko rek jeex na dañ koy tudde waqf aw xiyaasatihi wala ka nga xam ne moom lañ ko joxoon daal di koy jël féetewoo ko aw taslimihi liman wuqifa alayhi wala nga yóbbul ko jox ko ka nga xam ne dañ ko defal waqf ba gannaaw loolu fala yajuusu ba'da zalika fasqahu wala bay'ahu wala hibat soo xifee ba tudd na li waqf la amatoo droit aq di ci dellu gannaaw di ko dindi amatoo droit aq di ko jaay amatoo droit aq di ko maye ndax daanaka dañuy jàpp rek moomatoo yow daal lan nga moom mooy cosaan bi nga moom waaye lépp luy jëriñ bu cay jóge dañ naan loolu moom moomatoo kon amoo droit di ko jëriñoo ci lenn bi mujj ci ahkam yooyu mooy in taal in taatalati manafiu lwaqf heure boo xamee ne nii dem na ba daal di jeex njëriñ ya waqf ba doon jóg li xiraabihi ñeel yàqu ga nga xam ne yàqu na ko màbb gam màbb ràpp gam ràpp ajaaza baadu ahli ilm daganal na lenn ca borom xam-xam ya bay uhu nekkoon nañ jaay waqf bi wa sarfa samanihi fi mislihi ñu daal di jël alal dañ ko jaaye def ko ci lu mel noonu wa in faddala shay'un bu dara desee surifa fi masjidin yóbbu ko te benn jàkk aw tusaddiqa bihi ala alfuqara wal masakin wala ñu sarax ko ay faqir ak i masakin tey jii masalan waa ji jëloon na benn kër mu ne lii di daf ko def waqf yàlla dogal ñu dem kër ga daanu kër ga yi bu daanu su boobaa borom xam-xam yi lenn ca ñoom dañu ne mënees na koo jël ñu jaay ko jéem caa jël beneen kër buñ ca tabax te loolu it bu doon lu mel ne suñu jamono ji moom day yomb lool da xam ngeen kër gi kër gi nekk parcelle même bu daanoo pàkk bi kese kese mën nga waa dem kër Massar am ci étage bu toll ne bi nga amoon parcelle loolu da ngay gis ne kon lu mën a nekk la su dee ne munta nekk it ñu xool lépp loo xam ne day jëriñ ñu jël alal joojee delloo ko fa ndax it moo gën lañ ko doon jëfandikoo kër la tool la ab oto la yàqu na amatul njëriñ ñu bàyyi ko noonu rek ne wax fa la déedéet dañ koy jël jaay ko seet fan la mën a génnee njëriñ bu nekk ci loolu kon lii mbokk dañuy gis ne mooy li ñuy tuddee al waqf ku nekk war a ñaan yàlla bis buy faatu fekk bàyyi na gannaawam loo xam ne tuyaaba ji day meññ di ko fekk si mi ngi noonu jiitu ñuy jël suñu bind ñaareel boo xam ne am na lu mu ci doon laaj ci waqf bi incha allah ñu jéem a xool wala ñoo dem ci bind ñaareel bi naam bismillah naam waaw mu ne waaw ki nga xam ne ci lalu deeyam dafay def la nga xam ne nii moom mooy alwaqf ku mel noo ni ay ndonoom am nañ droit bañ loolu su dee ne dañ ko wéyal xayrun waaye ki nga xam ne dafa dem ba nekk ci lalu dee ñu xam ne feebar bi moom du ci jóg mi ngi nii day dee ku mel noonu dañ naan ña nga xam ne ñoo koy donn ñoom ñooy wéyal décision yi muy jël te ña muy mayee te ñum dul mayee ba moo tax sax lu bari ci fuqaha yi depuis jamono Usmaan da daan wax képp ku nekk ci lalu dem ba pare fase soxnaam fase bi moom wér na waaye soxna si day doon te mooy lépp lu jëm ci wàllu alal ki nekk ci lalu dee décision yam cay jël fokk ay ndonoom ñoo cay d'accord bu dul looloo am nañ droit opposé wu ci mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaleykum salaam
ngeen moomee mooy économie bi.
mooy dafa nekk mooy économie daal affaire ci économie ci ci finance yi.
waaw mu umma islamique ak mooy islamique.
waaw mu ngi am problème ci chômage.
waaw islam mu ngi am lu mel nii nit ñi xamuñ ko. soo xoolee léegi ñu bëri ñu am sunna am amuñ ko amuñ lu ñu ñoom ñu ñu doon bëri ay ay ay ay ay ay sunna lañ amuñ ñu cee islam mu ngi am ay moyens de financement yu mel nii. l'espoir ne ban borom xam-xam la fu mu njàpp ndax lii moom ñu bëri xamuñ ko te te moyen de financement boo xam ne léegi léegi li koy gën a question mooy affaire bi lu mu ne su demee fa ñu joxe néeg bâtiment mu nekk wax bu daal mais loolu aussi bu jamono demee ba nga xam ne xam-xam comme ça léegi dañu amortissement amortissement yow affaire contraire bi dañuy amortissement su dee par exemple dañu def bâtiment ci loolu am la am lu ñuy gérer xaalis boo xam ne dinañ mën a dajal dajalaat amortissement ñu ñu ñu ko di entreprise bi bàyyiwaat waaw yàlla la wala kulli xaal lépp loo xam ne nii mënees na ko réparé waat loolu kenn du xalaat di ko jaay soo gisee ñu xalaat jaay ko mooy dañ ko mënta réparé waaye kër gi bu dee la ciy jóge mën na koo réparé dañ ko réparé mu continuer jur njëriñ am maa nag li nga wax naan lu mel nii ca nit ñi xamuñu ko ah loolu moo waral ñu toog ñi di jàng parce que doomu aadama il faut ñu jàng nit ñi nag ñu ngi ci def ay effort wax dëgg yàlla am na ay daje yu bëri gaa yi ñu ko def ci wàllu waxtu bi mi ngi noonu fekk nañ ci ay daje institut islamique ak yeneen nit ñi ñu ngi ciy wax ba comme ni nga xamee wax naa ko ci waxtaan bi xatta gouvernement Sénégal bi ñu xoolee waqf li muy def ci yeneen dëkk arab yi ñoom it ñi ngi ñi ngi créé benn autorité autorité du waqf boo xam ne ni seen liggéey mooy sensibiliser nit ñi ba seen alal ñu koy jël di ko def te la nga xam ne ni mooy wàllu waqf boobee te waqf it la nga xam ne moom mooy njëriñ bi mooy yow doomu aadama pour mu jël joxe léeg-léeg day diis ci xolam waaye lii moom dañ naan la yaa ko moom dañ kii sa kër la sa tool la ñu xam ne kër diw la toolu diw la léegi nag yow nga joxe ko te yàlla tax la tey juddoo ci meññeent loolee da ngay gis ne mi nga noonu waa at yi ci gannaaw am na benn mbokk bu ñu doon wax fii ci 19 bu fa tabaxoon benn R plus 4 jagleel ko ay daara yu nekk fii ci Sénégal loolu mbokk lu rafet la loo xam ne dañ xam ne yaa ko moom mais nag la ciy meññ moom day jëm ci liggéeyub lislaam say doom xam ne lii seen bàyyi ko moom waaye nag du lu ñuy doon la ciy juddoo day dellu ci liggéeyub lislaam loolee wax dëgg yàlla nit ñi xamuñu ko woon waaye nag ni borom xam-xam yaa ngi ciy wax état bi it mi ngi ciy def sensibilisation wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam man sama laaj moo ñëw ci maanaam comme koo xam dafa yor ay njaboot yu góor ak yu jigéen waaw léegi mu defal wax góor ñi maanaam bàyyi jigéen ñi ndax loolu li mu nekk la wala bu defalee góor ñi rek faaw na ko jigéen ñi.
wa ala kulli xaal loolu mi ngi euh, aju ci la nga xamee ne nii mooy euh, euh, lan moo tax mu def ko dana ñëw ci bind yi ci kanam ci tontu yi demee noonu waaye waajur dañ koo sant mu daal di yemele ay doomam yemele nag mooy ku ne nga jox ko ak xam ñu bëri dañoo jàpp ne yemele mooy ku ne nga jox ko la nga jox kii mais tey masalan bàyyi mën naa xool sama doom yi góor yi kat ku ne am na kër sama doom yi jigéen ñi ñi ngi ci seeni sëy maa leen war maa leen di jàppale léegi nag mën naa bu ma fi jógee problème am nga ne kër nga def benn wax ne wax bii day dama koo jagleel sama doom yi jigéen yi ñu góor ñi dañ xam li tax bàyyi def loolu kon jéng du am ci loolu des fois yi tamit ne xatta njaboot googe am na ñoo xam ne yàlla mën na leen a may ñu nekk sa njaboot gu mag ñoom ñëpp am nañ lu ñu am ah seen njaboot gu sew nga am njaboot gu sew goo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi toll ci jàng yow yaa leen yor nga xam ne tey ji su ma deewoon mën na am jafe-jafe nga am loo leen bàyyee ne lii yaa ngi ko def waqf su ko defee ñi mag ñi daañ daañ xam li ko waral te mooy lii tax bàyyi def li bu doon ñoom it bàyyi da ko def te mooy lépp loo xamee ne nii am na lu ko waral lu ñu mën a justifier kenn du ko tudd ak jeng jeng mooy nga fekk ñaar yoo xam ne ñoo yem même situation nga jox kii bàyyi ki ci des loole moom l'islam da koy tere mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ah naam naam
ndax dañu am diabo yu ngay joxe par exemple soo defee wax ci ñu ci doon boo boo ko defee boo boo ko defee ko defee sa sa doom waaw da nga am diabo boo xam ne dana toll nii boo ko defee ñu ci doon
ndax ki nga xam ne dafa defal waqfu ay doomam ndax dana am tuyaaba ju toll ne bu ko defalee néew ju doole ji loolu lépp mi ngi dépendre ci situation xale ya situation xale ya na nga ragalee ñu tumuranke ko sa gannaaw su dee ne ay xale lañ yoo xamee ne nii mën nañoo demal seen bopp loolee la chaque nga jox ko miskin ñi mënal seen mënalu seen bopp dara mooy la gën bu ñu ne nag ay xale la yoo xam ne nii jàpp nga ne kat ñii bu ma fi jóge woon tey amuñu benn moyen bu ñu mën a taxawale seen bopp dara loolee da ngay gis ne ah maadaama moom ñoo miskin ya kon ñoo yem situation defal ko say doom mooy la gën lépp loo xam ne nii daal doomu aadama bi da koy da koy def ci tar ci ci ci sarxe wala wax fa lu mën a doon bokk na fa tuyaaba ji li gën a bëri mooy fa nga xam ne dañ koo gën a aajowoo ñaar ñu aajowoo it buñ dajee ka la ca gën a jege kooku moom la tuyaaba ja gën a bëri ci moom loolu daal kon bu waa ji def wax bañ koo xool rek def naa ko ngir samay doom lañu waaye mu def ko ngir jàpp ne am na lu tax ma def ko te mooy taxaw goo xam ne ragal naa tumuranke guy dal seen gannaaw wallahu subhanahu wa taala aalam ndax it wax fa boobu li tax mu mën a dimbali waaw naam bismillah dana ñëw ci li ñu war li ñu war a li ñu war a jàng ci gannaaw nii léegi mooy wàllu maye wàllu maye la ñu war a jàng léegi yonent bi alayhi salaam dani ki maye dara ba pare dellu ca gannaaw dafay mel ni ki wàcc woon di ko lekka ki nga xis ba may may nga ko moo ko moom fi nga ko ko maye bu ko neexee jaay ko foofu bu ko neexee moomin may ko keneen kon loolu amoo droit amoo droit di ci dellu gannaaw su ko defee may googu nga ko may bu doon kër yi tamit sorewul ak waqf daani ko sorewul ak waqf ndax waa ji woo nga ko may ko kër kër googee tant que mi ngi koy dund day dugg ci sadaqu sadaqatul ja jaariya moo tax mu ne waqf ci sadaqatul jaariya la sadaqatul jaariya moo moo gën a yaatu waqf su ko defee may day dugg ci sadaqatul jaariya waa joo xam ne nii dafa néew doole nga woo ko may ko kër kër googee nga ko may tant que kër gi ñu ngi koy dëkkee ay doomam di ko dëkkee ak ñeneenam di ko dëkkee loole moom day doon loo xam ne ni tuyaaba du lay fekk amma nag bu dee wax fi moom mooy da nga ne ko am dëkkeel wala li ciy jógee nañ ko ko jox loolee moom mu nekk cosaan boo xam ne nii wóor na la ne lii moom kenn du ko jaay kenn du ko donnu kenn du ko nangam tuyaaba lay continuer jur rek ba ila yawmi din wallahu subhanahu wa taala aalam naam ndax waxtu bi mënees na ko utal limite loolee day doon lu ñuy tuddee ndimbal ndimbal lay doon mais du waqf waqf moom boo ko xesee ba wax moomatuloo ko waqf boo ko xesee ba tudd moomatuloo ko amaa nag nit ki am nga droit utal ko utal ko ak ak ak ak ndimbal loolu dana ñëw ci gannaaw ci bind ñu war a jàng am na lu ñuy tuddee umra ak ak ak roqaba ci yi ñuy jàng la gannaaw la bokk mooy masala nit ki nga ne ko kër gi day may naa la nga dëkk ko fii ak yaa ngi gën mu ngi naan fii ak yaa ngi gën may naa la nga dëkk ko loolu da ngay gis islam nangu na loolu wala nga ne ko daal fii ak maa ngi dund moom kër gi moom xamal ne sa kër la loolee lépp ay mbir la yoo xam ne nii mooy bind yi ñu war a jàng léegi bu ñu ko bilal mayee xaw ma ndax xaw ma kër gi ah ah waaw ah waaw ala kulli xaal kon incha allah ñu bu ñu bàyyi ñu bàyyi ñu bàyyi bilal na de ba ba pare ba xam incha allah. ñu ko doon waxee rek xam naa bu ñu noté ba pare moom laaj yi dafay génn dars bi mooy ku am laaj ci dars bi ak yeneen laaj lañ koy jagleel. bokk na rek loo xam ne nii borom xam-xam yi dañ koy wax waqf bi nga xam ne gis nañ bokk ji gën a yàgg tey bu ñu xam mooy waqf bi Ousmane Ibn Affan defoon ci ay tool yi tàndarmaam loolee dem na ba jur ay société yu mag jur ay banque islamique yu mag yoo xam ne nii tey jii Arabie Saoudite ak feneen ma nga fay nekk di ko meññ di lu jege junni at ak ñeenti téeméer mi ngi continuer di sax ngir barke sahabi bu mag boobu di Usman ibn Affan radiyallahu anhu defoon ci waqf ba waaw incha allah bu dee ne waaw bismillah naam mi ngi jëm ci waaw wa ala kulli xaal nit ñi juyoo ci ci ndono loolu moom dañuy dem ca àttekat ba mu àtte leen li wér daal mooy nit ki bu dee dafa faatu ay doomam ñoomam alal ji alal jooju nag islam du leen wax ne def leen ko nii islam daal da leen xamal yéen a ko moom suñu d'accord ñoom ci seen biir ne kër gi kat nañ ko bàyyi dëkkee ko wala kër gi kat nañ koy loué di séddoo location bi islam du ci wax dara suñu d'accordul ci loolu nag benn waay na ah man sama wàll dañ ma koy jox dañuy xool ñi ca des suñu mënee am kattan cotiser jox ko walla mu dem suñu ko mënul nag fokk dañuy jaay mbir ma séddale ko lu tax mooy kër gi moom bàyyi moomatu ko ñii bàyyi gannaaw ñoo ko moom loolu mooy la nga xamee ni nii moom moo cay nekk li di àtte bi islam te mooy tant que juboo nañu islam du leen wax mukk ne miraas leen da ngay gis ne ay wax ñu wax naan nit ki bu dee tant que miraas suñ ko du tàllee ay yooyu ay suñu wax rek la alal ji daal mooy ñi ko moom ñi ngi nii xam nañ lii ñoo ko moom d'accord nañ ci tant que ñoom ci seen wàllu bopp dëppoon nañ ci bàyyi masalan magasin bi suñu bàyyi bàyyi société bi suñu bàyyi bàyyi tool bi suñu bàyyi bàyyi ñun ñëpp nañ ko ànd sàmm ko lu ci juddoo ñu séddoo ko islam du leen wax déedéet tas leen ko séddoo ko islam du leen wax loolu lu dul nag kenn ci ñoom ne man dañ may jox sama wàll su boobaa li mu waxoon sànq moo ci nekk imma ñi ci des mën a cotiser jox ko buñ ko mënul nag ah on est obligé jaay ko ngir génnal ko wàllam wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal waaw waaw bismillah naam bàyyi boo xam ne dafa woo njabootam séddale leen alalam bala muy gaanu loolee lislaam dana ko nangu su dee ne jéngul ci séddale ba nga xam ne defe na ko ci noo xam ne ak jéng amu ca te wax naa leen it sànq raison yi tax jéng am jéng mooy par parloo waaye doom yi mën ngaa jox kenn lu ëpp la nga jox ko ca des fekk la tax nga waral ko sabab moo ko waral comme ni ma la waxoon ci njaboot gu sew gi ak njaboot gu mag gi bàyyi bu dee ne ci dundam la jël alalam séddale ko mayee ko loolee islam du ci wax dara ñoom ñañ ko may ñoo ko moom li lislaam dul nangu daal mooy nga ne su ma deeyee sama doom sàngam nañ ko jox nangam sama doom sàngam nañ ko jox nangam loolu lañ koy tuddee wasiya day nekk testament su boobaa dañu naan bàyyi de sa xalaat boobu dañ koy teg fii indi li yàlla wax su doon nag fa lillahi alhamdu bàyyi xamoon na sharia xam na ne su ma deeyee bu ñu ma doon miraas tey tey tey ni la ko sharia tërale bi ñu xoolee wasiya bàyyi mu dëppoog sharia su boobaa dañuy doxal loolu waaye lépp lu ci wuute ak sharia wax jooju dañ koy teggi doom kenn du ko defal wasiya lu dul li ko yàlla jox ciir mi ngi noonu amaa nag tey boo amoon ñaari ñaari doom benn doom bu góor benn doom bu jigéen nga ne daal bis bu ma deeyee sama alal ji genn wàllu alal ji moo doo ko moom deux tiers yi ci des faatoo kii ne ku da jël benn tiers loolu nga wax loolu la yàlla wax maadaam loolu yàlla wax amul benn benn benn problème waaye bu dee da ko def wasiya boo xam ne daal safaanu li yàlla wax su boobaa moom la borom bi di wax naan fa man xaafa min muusin janafan aw isman fa aslaha baynahum fala isma alayhi koo xam ne xool nga sa testament mbokk gis sa kat bakkaar am na ca mooy génne na ca ñu ngi ci wurut a génne wala dugal na ñu ngi ci war a génne wala jéng am na ca jéng na jëm ci benn doom wala ci benn soxna yow nga rectifier loolu ku mel noonu du ci am benn bakkaar wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal
loolu nag laa ko xam parce que am na ñoo xam ne dañuy yaakaar ni kooku dee ba ñu koy koy sonn waaye nan la ñuy doon da leen yaakaar kooku dee ñu ko tax
nga ne de waa na kulli xaal doomu aadama moom doomu aadama moom mooy doomu aadama waaw ala bokk na ci yi ñu war a jàng dimanche bi di ñëw insha allah mooy li ñuy tudde ak ruqba te mooy nga ne nit ki kër gi day jox naa la ko su ma la jëkkee dee yaa ko moom soo ma jëkkee dee danaa ko jël loolee borom xam-xam yi dañu lañ koo sib ndax boo ko defee ne ab kaamil bu suba la mi ngi naan waa ji yàlla na faatuwaay ndax ma moom kër gi loolu loolu loolu moom moo tax borom xam-xam yi dañoo sib loolu ba nga xamee ne doomu aadama mooy doomu aadama am na ku nekk la ca sa xol di jax-jaxal waaye nag bu dee ab julite moom loolu même bu duggee ci xolam it day muslu ci cheytaan day muslu ci cheytaan ndax yi ñëpp yéen a ngi fàttaliku suratul baqara lan moo ko waral mooy benn waay mi ngi ni dafa baayam mooy magu baayam dafa amul doom léegi nag moom bu magi baay bi dee rek moom moo ko war a doon mu yàkkamti ak deeyam xëy suba rek dem rey ko ñu ngi noonu xëy suba rek dem rey ko bi mu ko reyee am nañ ñu ñu noonoo woon ci bani Israël mu dem ci guddi gi sànnee ko ci seen quartier xëy suba rek gàddu jaaseen ñëw ne yéen a rey saa baay gis ngeen heureusement fekk yeneen ci yàlla Moussa gi dund ñoom ñu ne ah mais ñu rey ñu ko dañoo xëy fekk ko fii te loolu it mbokk atte lu jafe la xëy fekk nit ku ñu sànni ci buntu kër nit ñu ne moo ko rey déedéet ñun dañoo xëy fekk ko fii mu ne yéen a ko rey bi coow li ne kur ñu dem ci yeneen ci yàlla Moussa Moussa ne leen dem leen ngeen rey nag la ca xew yàgg ngeen ko dégg suratul Baqara bañ ñëwee Moussa daal di jël bañ demee ba indi nag wa da Moussa ne jël leen ci nag bi dara ngeen dóor ko góor gi ñu jël ci nag bi dóor ko góor gi góor gi jóg taxaw ne sama doomu frère bi moo ma rey ngir doon sama alal mi ngi noonu daal di daal di deeyaat te mooy doomu aadama dafa bëgg alal wa innahu li hubbil xayri la shadid moo dafa bëgg alal looloo tax ba da ngay gis wala fii dañ naan ku iñaane say ndono sa sa sag dee ñaaw sag dee ñaaw waaye yàlla kulli xaal loolu moom xol bu sell du ko def mukk xol bu sell du ko def mukk ndax lii nga yàkkamti pour jot ko mën naan boo ko jotee bu subaa nga dee am déet comme jullit moom du du def loolu mukk mi ngi noonu wallahu aalam waaw kon mbokk xam naa waaw ñu ñu mujj ca mbokk bee rek waaw ah waaw waaw bisimilah xaaral ñu après waaw bisimilah waaw ah waaw waaw waaw waaw waaw donc ah ah waaw mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu gis nga àdduna de gis nga àdduna de waaw wax nga dëgg wax nga dëgg waaw xoolal de waaw ci li mu wax rek daf ne pour wax rek nit ñi niñ bëggee alal mu ne moom xam na ñaar ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay wa waaye comme dañoo am intérêt àdduna bu bëri bu ñu am kii feebar frère bi bëgg ko opéré mu ne du ko opéré waaw ndax ndax ndax waaw mu ne loolu la ko yóbbu waaw xoolal xoolal mi ngi doon daw daw frère bi faat ko mu dem keneen opéré ko bu far faatu benn yoon yaa ngi dégg ala kulli xaal alal daal doomu aadama bi il faut mu xam ne nattu la ci natt yi nattu la ci natt yi gis na loo xam ne ci soriwuñ ci suñu famille koo xam ne dafa am doom bu jigéen mu daal di koy tabaxal kër tabaxal ko kër ba pare léegi frère bi mu bokkal ndey ak baay bi seen baay dee bàyyi benn étage mu woo sœur bi da ko comme sa papa tabaxal na la kër kër gi dama bëggoon nga bàyyee ma ko rek léegi man problème boo am danaa ko régler ndaw si na ko waaw waaye ba mu demee ba dajee góoru caamine ñu ne ko da ngaa ñàkk fayda kii bu dee ay dawum ñu koy jël ndaw si xëy xëy rek attaque tribunal attaque tribunal ñaar ñu bokk ndey ak baay yéeg nañu wàcc ci kër ga ba xëy dee bàyyi fa kër ya te ñoo bokk ndey ak baay kon ñeen gis mbokk alal ni mu mën a def yal nañu yàlla musal ci ayam waaw kii dafa yëkkatoon loxoom rek mën nañu mujj ci moom waaw waaw waaw waaw bépp rakka ya rakka yi ngay julli ci bëccëg yépp mënees na koo boole bu dee mën ngaa boole ñeenti rakka yépp ci benn sëlmal loolee da ngay gis ne lu mën a nekk la donte ne teqalee ñaar ñaar mooy li gën waaye mën ngaa boole ñeenti rakka yépp ci benn sëlmal mbokk mi ngi noonu yal nañu yàlla musal ci fitna yi alal yal nañu yàlla musal ci fitna yi njaboot musal ñu ci fitna yi dund ak fitna yi dee damay ñu afiye fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain